waaw Mboki, TDK Touba Darou électronique DJI Bip pour matériel électronique et informatique ay téléphone portable ak et accessoire waaw Touba Darou électronique nekk fii ci marché en face du Mouride cheikh bi di Serigne Ibrahima Kane Ding nga fa fekk ay ak Touba Darou électronique lépp lu jëm ci matériel électronique et informatique da nga ko téléphone portable yu yànjee casque Bluetooth ay ouvre MP3 dernière génération ay télévision écran plat ak ventilateur ak Touba Daaru Xudus électronique jaaxle day jeex ci lepp lu jëm ci informatique ak électronique wow bayiwul bien accessoire portable ay écouteur ay casque bluetooth ay pochette yu rafet lool ay téléphone portable original yu garantie, ay ouvreur mp3 ay téléviseur LED ak ay commande télévision kër gi Touba Daaru Xudus électronique jaaxle day jeex ci lepp lu jëm ci walu matériel électronique ak matériel téléphone portable ak seeni accessoire dawal gaaw Dakar marché Tilène cantine

asalaamaaleykum wa rahmatullah maa leen nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant naan leen très chers internautes de Koki TV ku ci nekk maa ngi lay nuyu di la jëfal naan leen dal leen jàmm seen émission néegu sëy ak oustaz Nohine Kane oustaz Nohine Kane ñu ngi lay nuyu naan la asalaamaaleykum. macha allah bi mën nañ ne doomu daara la comme kokki moom ku ko wax rek fii si Sénégal xam ne macha allah fa la euh, diine samp ay tànkam macha allah bi am na solo trop léegi ñu dugg ci biir waxtaan bi pour débuter dañuy laaj lan mooy sëy sëy farata la force la wala loo xamante ni nii yàlla daf ko def mu nekk farata wala sunna la wala lu ñu forcer nit la waaw soxna mi ne laaj nga laaj bu am solo li nga wax sànq ci biir wax ni mooy doomu daara la mm. am xaalisu daara la ñu ngéntee comme ni mbër bi doon waxee ne xaalisu daara la ñu ngéntee kon parce que dañ koy sago fi ñu dem voilà laaj nga laaj bu am solo sëy boo gisee tey téere bi ñu war a waxtaanee avant tout sax ñu wax ci suñu suñu maam moo nekk laay jaw yàlla yàlla yokk leeram daf daf ci bind ci wàllu éducation sexuelle bind wax ci lu am solo boo demee ci buntu téere yi moom lañu tiim nii dafay wax ne euh, ginnaaw bi mu sant yàlla mu ne sëy dafa nekk loo xamante ne suñu borom daf daf ñu ko def ko sunnaa ci ñun sunna yonent bi sunna yonent bi nag mooy loo xamante ne nit ki dafa war a ñu def ko du mat mukk ba mat ba war a mat ba ñu léegi loolu li tax ma am na ko mu dagal ci moom am am na ko mu araam ci moom ki nga xamante ne dafa ragal ne bu takkul soxna moom soxla na ko mais mën na njaalo ko dafa farata la ci moom pour mu takk soxna kon benn nga muy farata ki nga xamante ne moom Euh, bu takkee soxna baax na ci moom bu takkul mën naa muñ mën na muñ rapport sexuel du ko toog ko déranger kooku dañ ko soxlawu ko soxlawu bu ko takkoon tamit du teree moom mu def li muy def kooku moom kenn waxaale ay waxam <laughs> kooku moom sim nañ ci moom sax far mu def ko dégg nga kon mu nekk sunna boo xamante ne ku yàlla yónni moom yónnentu ak loo mën di mel daf lay booleeg ay jigéen nga takk soxna mur lan ngir muy mottali la boo xoolee alxuraan dafay wax ne euh, fankihul ayaama minkum de leen takk ay soxna waaye ndax soxna yi lu tax ñu koy takk toujours on pose la question que lu tax ñu takk soxna mooy hunna libaasul lakum wa antum libaasul lahunna ñoom ñooy seen mbalaanu sutura yéen yéenay mbalaanu sutura soxna si kon góor mënul dem bàyyi jigéen jigéen mënul dem bàyyi góor am na ci jamono yonent bi ñoo xamante ne dañ ñëw du ñu takk soxna ñoom daal dañuy dem ci jàkka ji rek julli jaamu yàlla yor seen kurus werd yooyu bi ko leen ci man parce que man maa leen gën a ragal yàlla maa leen dàq jaamu yàlla maa leen dàq julli lu ngeen di def rek maa leen ko dàq man maa man maay man maay man maay prophète bi gën a màgg ci prophète yi teewul damay takk soxna di tëdd di nelaw di yeewu kon dem leen ngeen takki ay soxna da ngeen bàyyi seen jaaxaan kon takk soxna sunna la soo xamante ni suñu borom subhanahu wa taala da koo dogal ci ñun sant ñuy dem leen ngeen takki ay soxna ba ci topp nag muy day ubbi buntu wërsëg dégg nga in yakunu fuqara yughnihumullahu min fadli yàlla nee ne boo ñàkkee di wor buntu bu ne nga fogg ko ubbeekuwul bu dee jigéen nga wala góor demal nga takk soxna nee na boo takkee soxna yàlla dinaa la dinaa la jox buntu bu mag loolu nag dama ci joxe exemple ci sama morom yi nga xam ne dañuy yor benn soxna duñ dolli bu ko defee célibataire dañuy bëri kenn du am kenn du euh, kenn du sëyi dégg nga parce que man bi may takk benn bi may waaj a takk soxna ma aw woon dara bi ma takkee benn am ay doom yàlla may ne ma man ko yor fi mu toll ma dem takkaat naa beneen maa ngi yor ñaar dèjà te yàlla dimbal na ba loola maa ngi koy man kon li ngay def lu gëm-gëm la li Cheikh Ibrahima di wax ne lu foo yem rek yaa fa yemal sa bopp kon soxna bunt la ci ubbi wërsëg loolu tamit naka ñëpp xam ala kulli xaal am na solo macha allah am na solo loolu loolu loolu léegi dañuy ñëw si tegginu sëy ak lan mooy lan la ñuy mooy dund ko ci sëy tegginu sëy ak euh, xam nga loo gis lu ne am na am na am nay teggin am na lu ca rafet am na lu ca ñaaw yonent bi saa sallam dane inna allaha yuhibbu isaa amila ahadukum amalan an yuttiqinahu yàlla dafa bëgg kenn ci yéen buy def dara mu rafetal ko fi ne bi ñu def émission bi est-ce que dañu doon dem ci mbedd mi rek toog déedéet duñ dem ci mbedd mi rek toog mais dañoo ñëw foo xamante ni toog caméraman yi monte xool ba mu baax image yi rafet na wala rafetul ñu soog a de ñu soog ñu soog a tourné comprendre nga baax ci suñu toogaay ñu toog ñu toog da ngaa dem solu sañ see def maquillage ak yooyu say kon nekkul loo xamante nii da ngay ñëw rek nëpp rek dem ca dafa am ay teggin am ay réalité yuñ ko war a defee yonent bi saa salaam jàngale ko muy nag thème bu naqaree waxtaane te ñu bëri di ko daw mooy dafa nekk loo xamante ne juge tabou la juge tabou boobu nag nga xam ne sexe daf ko nekk ci Sénégal muy euh, mu ñu nëbb ko xale yi moo tax xale yi loo ko nëbb da koy dem découvrir ko dafa am ci question dafa am benn benn benn benn borom kër dañuy tëdd ci kaw lal bi moo soxnaam jël doom ji tëral ko ci suuf doom ji yow la ko ne ko waa papa yaag sama yaay lu ngeen def ci kaw lal bi mu guddee pourtant daf ko ko war a leeral léegi xale bi toujours day poser question ci xelam naan ñoom lan lañ war a def foofu kon loolu juge tabu la doon ci Sénégal moo tax tubaab yi bi ñuy def alxarbu naai mooy guerre froide jaaratuñ ci ay pistolet nañ fañ doon jaar ak ñoom Serigne Touba ak ñoom Seydi Alhaji Malick léegi ñun dafa am fuñ jaar ak ñun xam nañ ne sexe kumpala woon ci ci ci ñun ñun ñun sénégalais yi wala ñun africains yi dañu ñëw buux ñu xaalis souvent léegi da ngay dégg ay milliards milliards te jamono bu njëkk ba loolu dégg ay 500000 ay 50000 200000 mais léegi milliards rek ngay dégg. léegi ñu jël ay milliards tuur ñu ko waaye nag ñu yombalal ñu li nga xam ne moo di moo di sexe pour ñu mën cee daw jëm kon fi ne léegi nag Sénégal nag dañ lay buux nag dañ lay buux nag ne loolu ku koy waxtaanee da ngaa da ngaa ñàkk teggin te fekk na ñoom booy waxtaan ci naan yonent bi dem na xare Badar ak ak yonent bi moo waroon gaynde ga ak moo nangam ak ko sax déglu nag yitteelu leen waaye bu leen wax ci thème bi nga xam ne dafa nekk loo xam ne sujet tabou la ko dañuy daw wuti ko dañ koy déglu moo tax lu mat di lu mat di waxtaane te yonent bi da ko daan waxtaane ak soxna Aïssa bu demee ba ci lu munta tudd mu ne ko soxna Aïssa jàngalee ko nii wala nii am na jigéen gu mas a gis règle yonent bi nekk boo demee da ngay ut coton wala da ngay ut morso nga def ko ci sa kanam xam nga yonent bi dafa bëri woon kersa soxna si xamut luy loolu soxna Aysa moom dem ba woo jigéen gi mu ñëw mu ne ko yonent bi ba ne laa sa kanam mooy jël loxoom teg ko foofu ne ko fii la la bëgg a mooy sam pëy nga koy teg dégg nga waaye boo demee ci siraaju saalik muy téere boo xam xam-xam dañ koy jàng dafay wax ne yundabu lil muxtaaji maa am ni la anat zi uhbatin taswiju bikrin laa abat wal waji huwa alkafu bi ilmin yunzaru wa qutbatin fi xadbatin wa yuzharu waaye wa jaasa fi l aqdi li kullin an yura kullan wal istimtaahu xaasa dubura mu ne sa soxna bis biñ na nga gis lu neem dagan na nga gis mu gis sa lu ne daga na nga bànneexu ci lu ne moom it dagan na mu bànneexu ci sa lu ne ba mu des buntu ginnaaw bi loolu rek la ñuy tere alaakulli amul leneen lu ñu la tere. léegi pour li ñuy wax ne am na dafa nekk benn sujet boo xam ne Sénégal dafa bëri ay version ñii dañoo jaar ci côté bi oustaz yi ñeneen ñi jaar ci beneen côté bii ñu ne ndax borom kër war na seex awra euh, jabaram aussi jabar aussi est-ce que war na mën a seex awra borom këram bu ñuy jotee. kenn ku ne ci ñoom ñaar am na droit def ko loolu moom dara néew ci waaye nag. waaye toujours da ngay poos l'islam toujours lislaam moom du tere dara bu ma ne du tere dara nag ñi am xel nañ ma déglu su ma nee du tere dara lay lay toog di la xool ba nga def mun laaj la li tax nga li tax li ngay def ndax est-ce que ci wala lor newu ci toujours day poser question def gi ñu koy def bu dee lora nga ca parce que am na tamit am na lu ci mën a juddoo bu fekkente ne jigéen mel na na mu war a mel góor mel na mu war a mel ci set ak ci sell ba boobaa dara dara dara newu ca parce que am na sëy yu mu tas am na sëy yu mu tas am na ñoo xamante ne góor ñoo xam ne dañuy bëgg loola am jigéen ñoo xam ne dañuy bëgg loola jigéen gi ko bëgg bu ko borom këram defalul mën naa tas wala mën naa dem sax euh, dem dem di ko uti ci feneen mu ko bàkkaar te bu boobaa nag ma ngay laal loo xam ne ma ngi koy lor kon soxna am na droit la laal làmmiñam fu ko neex ci cëri boroom këram borom këram it am na droit la làmmiñam wi ci cëri fu ko neex ñi naan la day euh, làmmiñ buy tudd yàlla déedéet foofu laa doon ñëw. làmmiñ bi yeneen ustaas yi dañ ne nga xamante ne day sàbbal suñu borom warul jël làmmiñam a boo të waaw léegi boo téyee kaamil di ko téye woon daa demoon ci douche bi gi ngay téye sa loxo nii booy booy tëdd ak sa soxna yaa ngi koy làmbatoo say loxo nga koy làmbatoo wala doo ko làmbatoo say loxo xanaa kenn du làmbatoo eh, voilà yooyu booy jàng kaamil moom ngay téye alxuraan ji nga mokkal sa dënn fii ne man alxuraan jàngi sama ci sama dënn moom lay duggaale kon yooyu du doon problème alxuraan yi tudd yàlla xol a koy def làmmiñ maaj kii la rek mi ngi mel ne bët soo soo mën la woon gëmmal nga gëmma ma jox la pièce cent franc ne la téye ko boo ko téyee di nga xam ne lii cent franc la kon làmmiñ bi tudd yàlla loola ci dara làmmiñ mën naa bañ a def loola ba noppi def lu raw loola dégg nga baax parce que jëw moo jëw moo gën a garaaw kon kay dañ wax ne làmmiñ buy tudd yàlla warul jëw loolu mooy gravité bi voilà mais dara dara newu ci ala kulli xaal. loolu leer na ne bànneexu sëy doomu ko yàlla jagleel wala dafa yi nga xamante ne comme mbindeef ay ay jinne kii koy waxee animaux yi yëpp si yàlla léegi nag bànneexu sëy boobu ndax yàlla doomu mm, sëy comme ni ko Maam ga lay waxee ci téere bi paas bi moom laa moom moom laa tiim nii sax boo xoolee dafay wax ne bànneexu sëy ñëpp a ko xam ba ci weñ ak malentaan ak mbóot bi ne ci duus bi sax xam na bànneexu sëy moo tax mu ne alimahu kullu min al xayawaani ñëpp a ko xam ci ci nga xam ne ñoo di ñoo di animaux yi mu ne fanaatiqun wa saamitun sa yaani ki noppi ak ki wax a fi nekk rek ni ko doomu aadama xame noonu la ko bàyyi may xame waaye nag bàyyi ma def war naa am différence a am différence moo tax kenn ci yéen buy jot ak soxnaam bu mu ñëw rek def ne comme ni bàyyi may defee waaye na def lu ñuy wax al muqaddimatul mooy préliminaire yi foo wax sa soxna parce que comme ni ma ko waxee ci Dakar Buzz boo xool demee ci Instagram bi lu ne gars yi wax nañ ma ko fa eh, oustaz bi nangam oustaz bi la voilà mais fekk ne voilà yonent bi saa dafa santaane ne euh, na ngeen di fo ak seen soxna yi bala ngeen a joteek ñoom na ngeen fo ak ñoom parce que dama ci joxe exemple ma ne bu ñuy fubal bu ñuy fubal ci biir terrain Neymar bu waree ñëw rempli Messi mu toog ci banc de touche bi est-ce que arbitre bi day jékki-jékki rek ñu woo ko ne ko jógal def remplaçant nu muy def dafay jóg du ay cëram defar ba yaramam tàng ngir lan ngir bu duggee ci terrain bu mën a bokk voilà loolu nag koo séq boo xoolee bànneexu say fukk la juróom-ñeenti juróom-ñeenti euh, ceer yi jigéen moo ko moom moo tax jigéen bànneexam dafa sori moo tax ci côté boobu bari na ñoo xam ne dañ sama borom kër daa gaaw a fekk du loola xam nga ñaar ñuy bëri bu fekkente ne kenn ki daa ëpp doole morom ji mën na koo gaaw a daan bi gaaw a jeex ñu defee ne dafa gaaw a daan fekk du loola la ca war souvent ci wàllu foo loola moodul am mooy tax góor gi daal di gaaw a àgg parce que góor moo gën a gaaw a àgg jigéen bu ko defee foo boo gisee yonent bi jàngalee ko noonu mooy dafa bëgg nga yàgg ci ak sa soxna ba nga xamante nii comme li ma ko waxee bal la bànneexu jigéen bal la bu nekk ci milieu terrain dañ koy jël di ko paasante mais doo tëb tëb rek taxaw milieu terrain bëgg ko dóor mu dugg ci camp yi déedéet loolu moom xel sax nangu ko dafa am fu muy jaar nag étape yooyu loolu nag mooy fo ba nga xamante nii pour bu accès ci euh, bu accès ci buntu camp yi koo ko paas pour mu dugal ko day yomb dégg nga baax loolu mooy tax euh, bànneexu jigéen gaaw a mën a accès parce que dafa sori. léegi nag boo ko deful nag boo tëbi tëb rek ñëw agsi rek daal di euh, engagé affaire bi góor gi mën naa daal di àgg te fekk du pare loola nag day indi souvent couple yu bëri di am problème dafay indi mer dafay indi mer parce que jigéen du am satisfaction ci li muy def loolu loolu mooy danger boobu baax euh, léegi dañuy ñëw ne balaa ngay sëy ak sa soxna daa am loo war a ñaan wala dafa loo ah, mooy li ma li ma doon wax rek. sariya lu la jàngal dana la booy def nii. ceebu jën sax bo buñ la ko taajalee bala nga koo waxal bismillah boko deful saytaane ngi bokk yow di lek ka suji buñ la ko defee buñ la ko joxee da ngay wax bismillah nga soga nan boko deful saytaane ngi do ak yow sa soxna bo jotee ak mom ta waxo bismillah motax ma maam morgay morgalaay gisa bo xolé ci benen parti bi mi ngi wax fi ne waqad defe euh, bokku na ci teggini say minha ladabtidaa bismillahi min qabl kasf awratin ya sahi balanga summi say sey cër la wax nga wax bismillah ndax li nga jëm ak jaamu yàlla la fi ne fi ne nii boo jàppoo taxaw allahu akbar dinaa fi la ma dem tëdd sama soxna fee ñu tëdd ci kaw lal bi di fookareeg di di di di kiyante maa yow ñooy am rek jaamu yàlla mën na maa pare sama ëpp la tuyaaba yow parce que yow julli gi mën naa nekk ngistal la mën na ngaa pare ma ëpp la jaamu yàlla kon kii dem ci sëy ak soxnaam dafa mel ne kuy dem ca geer moo tax maam Mor Galaas wax na ko ci nee ne euh, awray borom kër bu duggee ca awray jigéen noonu mu te noonu mu cay jame moo ki sànni xeej ca guerre ba jam ko tuyaaba ja muy am tuyaaba ju toll noonu lay am moo tax yonent bi ne woon euh, ñu laaj ko ne ko ndax kenn bu génnee man niyu ci lu dul sëy ndax dana ci am bàkkaar ndax ndax ndax ndax ndax kooku dana ci am tuyaaba maanaam nit bu sëyeeg soxnaam ndax dana ci am tuyaaba yonent bi ne leen da ciy am tuyaaba comme ni nga xamante ne bu ko tuuree foo xamante ne santuñ ko ko noonu la ci amee bàkkaar kon boo seeyee koo xamante ni takkoo ko da ci am bàkkaar waaye boo seeyee koo xamante ni takk nga ko loolu da nga ci am tuyaaba ju réeréeré nga ciy am surtout nag nga nekk sa soxna rek foo ak moom ba mu ree wala nga seey ak moom mu bég loolu jihaad ju mag a mag la alaa ala ala ala ah, gis nga moo tax mu wax ne min ha la dab tidaa bismillah na wax bismillah min qabli kasfi awratin bala ngaa summeeku kon ba nga préparé di nekk sa toilette sangu ba pare ba ñëw ba war a tëdd ci lal bi bala ngaa tëdd sa laal waxal bismillah léegi nag boo demee nag boo war a tàmbali nag sa soxna nag ngeen jëm ci eh, mbir mi nag am na ñaan koo war a jàng ci sunna mooy da ngay ne allahumma jannibna as-saytaana wa jannibi saytaana ma razaqtana mooy yàlla na nga ñu musal ci saytaane waaye lii ñuy bëgg a nii bu ci doom juddoo na ko musal ci saytaane parce que bëri na ko jàmbat faru rab fekk bay booy juróom di jotee foofa lañ ko fàtte fàtte ñaan ñaan googu mu toppee ko foofa kon fa faru rab dina toppee nit ci jour bi borom kër euh, soxna di tëdd man nii wu di génn ci ku góor ki du dugg ci jigéen ki far euh, rab saytaane mën naa participer foofu topp la moo tax euh, rab mën na rab mooy saytaane rek voilà mooy aljinil kaafir kon loolu doomu aadama yi ngay ñu ne kii assassin la reykatu nit la kii nit ku bon la lu ne ñu koy def mais moom daal kenn mënu fexe rek ba du def ay njaaxum ñu foog ne si nit ki la fekk peut-être ca sëyukaay ba foofu la woon nu mu sosoon. foofa la foofa la ñaan boobu ngay wax nii dafa am solo. foofa dafa am solo yonent bi saa salaam moo ñu gën a mat kon moo xam lépp lu mu ñu jàngal rek alquran dafa ne wa ma ataakum rasul fa xuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu yonent bi fu mu ne leen fii la rek foofu la kon bu ne laa defal ñaan sàngam kon am na lu am na am na lum lay moytuloo naka noonu booy takk soxna mu ne la defal istixaar am na danger bu ne ci soxna yi moo tax xale yi léeg-léeg da ngay dégg ñu ne diw tey may nañ ko tey mur nañ ko tay sëy na tey waaye léegi looy gis bañ ko may legui 3 mois la waji fat na ci bis bi saraxal nañ ko ci bis bi lepp ci bis bi la yem lo rek ngay deg legui parce que la mag ni daan def daw ñop ah dañ ko def dañuy xey rek dem tak legui kon am na lu ñuy wax bu ñuy commencer sey legui bu ñu paree normalement am lu ñu wara wax wala. paré sey mom sëy moom. wa demal sangu dem li am solo moy rek bo paré bo mané bu féké mëno sangu nga dem raxas li ka talé sa jumbu comme léegi toilette yi léegi moyen moyen bi am na non mën nga bañ a sax sangu jana ba carrément mais nga dem raxas sa fii ba sobe si wàññeeku beneen bi tamit am na ñoo xamante ne benn yoon la ñuy joteeg seen soxna ci genn guddi bu boobaa kooku amul problème ba pare man nga raxas bi mais boo joteeg sa soxna war a jotee waat ak moom yéen ñaar war naa dem yeesalaat kanamam raxas ko ba mu set léegi périodicité sëy a lislaam moom carte gab la la jox rek lu la neex nga retiré en tout cas jàppal na yow ni ngay retiré ci sa compte noonu la fa xaalis bay jógee. heure ko centré waaye nag nanta moroo nag dana yokk feebar. Hmm. am na koo xamante ne dafa waxoon dafa laajoon sëñ bu mag bi sëriñ Tuubaa ne ko dama am soxna may laaj damaa bëgg a dëkk ak moom ci benn néeg wala damaa war a ber néeg sëñ bi jox ko misaal mu doy waar ne ko loolu de li ma la ciy jox misaal mooy mel ne da ngaa am ab tool jardin am fa benn garab bu rëy gu sëq am ker gu sedd nga am fa benn njaq njaq mooy ndaaye ñi naanee xam nga jaq boobu day sedd boole ko ker gi sedd sëñ bi ne ko da nga naan mar danga nga naan ta doo mar mu ne mu ne ko waaye te naan te moroo day joxe feebar gis nga moom sëñ bi ak ci tegginam jox na ko exemple leeral ko te tuddul jigéen mooy da ko bëgg a wax ne ko boo dëkkee sa soxna da nga joteeg moom soxla ko léeg nga joteeg moom sax te doo ko soxla waaw kon nag boo mënee beru mu gën waaye foo tollu sëy moom Mamor wax na ci biir téere bi nee ne euh, euh, laa tukki siril jimaa ya ixwaani mata talabtum sixatal jismaani bu leen di bëri nu ngeen di sëy bu ngeen bëggee wér parce que ñaar sëy bu bëri dina waral métitu ndigg dina waral métitu colonne vertébrale dana indi feebar yu bëri dana indi sax dooful basar mooy gis bu naqari naka noonu tamit sëy bu normal nag dana waral gis bu neex fi ne bëri na xale yu jigéen yoo xam ne dañoo seen bët yi neexut te la ko waral mooy ñàkk am borom kër célibataire bi toog fi ne nii boo demee bët yi neexul waaye fi ne ñàkk see ñàkk see ko waral dégg nga voilà kon loolu ñàkk sa yi day lëndëmal ay bët nag waaw ngi reetaan ñàkk sa yi tamit day ay bët nag mm. Mm. yàlla ñu ci yàlla musal wax am na solo lan mooy euh, charte a yi lan la par exemple waaw charte yi daal maanaam lan boo defee lii nga xamante ne nii boo ko defee war ngaa mën a sëy bi war na mën a dagan maanaam doo leen am ndax nit a ngi sëy des li muy sëyee dara baax waaw bëri na bëri na surtout question boobu moom ñi koy posé ba am ñoo xam ne seen sëy tas na bu yàgg te ñu ngi sëy bi voilà Sénégal xamul sax nu ñuy fasee ak nu ñuy kiyee parce que dafa am dafa am lu ñuy wax at talaaqu sunni fi ne jigéen mën nga koo fase mën nga ko fase fase moo xamante ni fase mi du normal mm-hmm. da nga war a dem nga jëliwaat ko ñaara bi jigéen waroo ko fase mu dem ñibbi القران دا نيو خني لا تخرجوهن من بيوتهن اذا طلقتم النساء بو ген فاسي جيجن ني با بار نيوات تي كانام لا تخرجوهن من بيوتهن بو فاسي بول генي واي نا ген جيجن ني نين ام فلو بري ولا يخرجن بولين ген الا بفاحشه لول واج دافا جيل ديسيون فيرم كون بول لا فاسي بول ген توغال توغال سي كيرغي تك ساي ديف سا موراي مور بودي كوي تك ساي بودي كوي تك لا والا nga tek bamou bax di sol sa taybaaji bax di rombu waji diko xawa diko xawa diko xawa sarmi xel mi mën naa nekkaat ci yow dégg nga xel mi mën naa nekkaat ci yow bu boobaa bu la soxlaa bu idda ji jeexul soxnaam nga ba léegi kon jigéen wurta gaaw génn kon sarti sëy moom la ma ciy wax rek la ci Sëriñ waxoon na ku góor ki bëgg ku jigéen ki ku jigéen ki bëgg ku góor ki ñaari bëgg yooyu bu ci dara rek sëy yàqu parce que bari na ñu may naan ma oustaz dañ maa maye waaye kiñ ma may daal damay nekk ak moom mais sama xel day nekk ca ka ma njëkkoon a bëgg parce que biñ ma koy may dañ ma mariage boo xam ne ma ko obligé rek def la mais ba am na xale yoo xam ne tamit riirum mariage mais leen yóbbu rek seen collègue yëpp sëy nañ benn waay ñëw rek jóge fale rek ñu daal ciy dugg pare nag bu ñu nag ba coowal ceet gi jeex nag ak ceewa xew beeg mariage beeg yooyu bu ñu sumee seen robe de mariage rek seen daal di duñ bëgg dara ci sëy bi kon loolu tamit danger la booy bëgg kon na nga bëgg ku la bëgg yow nga bëgg ko waaye nag na la say goro bëgg tamit nag loolu baax na ci loolu du ci sart nag teew sëy ma waaye nag na la say goro bëgg yow it nga bëgg leen loolu dana dëgëral ab dana dëgëral ab sëy bu ko defee la ca des mooy dem mayee ji mayee nag dañu fàtte ni mën nañ ko defee ci église sax parce que ba ma doon des man di quoi koo xamante beaucoup nous disent par exemple beaucoup euh, de a de religion disent, bokkuñu diine moom ca diineem lañ si koy may te dis lañ koy maye dama nañ la ci église bi des moi ci du ci dara maye nañ ko ci nañ ko lal basan ci mbedd defee ko fa gura gën cay sédd ci dara ñaan na ñaan ne ñaar du ko la ne boo fas day dugg bu dee dëgg la ci man fas bi day dugg boo ñëw kii ñëwoon caméraman bi ñëwoon fekk sama doom ci kër gi ngay sama doom yow mu a la kii kat sa sa doom ji bëgg naa ko ma laaj la ne la yow bëgg nga ko mën a ah ma ne ko yebal sa kër mu am may naa la ko dañuy wax ne loolu say dugg na kon moo tax ñu ne am fase ak talaaq kenn du ko kenn du ko kafe fase ak may naa la kenn du ko kenn du kenn du ko kafe kon loolu rek mooy sart yi bu ko góor ko bëggee ko ko jigéen ki bëgg ko kilifa yi ñëw intervenir rek ñu maye leen ala kulli Hmm. léegi bànneexu sëy ñaata xaaj la ci góor ak ku jigéen boo demee maam Mor lool loolu loolu la bind nee na dix la dix yi nag nee na jigéen moo am juróom-ñeent yi moo tax gisoo wa sahwatul jimaa'i bànneexu say asratun fukk la dégg nga fa tisaatul mu ne neuf yi nag li mar atin kon la ma la waxoon ne la combat bi jigéen a ci ëppale moom moo ëpp luñ ko fay léegi nag comme moo ëpp luñ ko fay nag bu ko bu ko bu ko góor gi gaawatoo du am lim bëgg dégg nga ba kon juróom ñent la mais euh, fukk fukk la juróom-ñeent jigen moko mom ben la ci am motax tax di gawa di gawa di wala motax ñu gawa ag a àgg waaw kon kon lool la waaw mais comme ñu ko waxé sank rek ku nekk ndax am nga droit gis sa awra morom kenn ku ci ne alcorane daf ñu wax ne dañu wara dal taal lampe bi wala am lu ñu wara wax loolu yépp da nga gis ñina wala voilà laaj nga laaj bu am solo ñu dañ nan la boy goor ki buy gis awray jigen soxnam day waral gumba wala doom ji mën gumba wala ku jigen ki wala wala ku jigen ki buy gis awray soxnam mën gumba fekk mag jublu wun ci won gumba beut mais gumba xol gumba xol moy ñàkk teggin parce que bo yagge fi ne ni da ngay yo xamanteni bu ñeké seen borom ko ci kër gi seen yoon néew ci bu seen kër gi tejo bu len nexé bu ñuy sangu dañuy ku ci neeg bi def yeb yooyu day waral dem ba day nit kersa da ngay oser maanaam da ngay wow bët wow bët lañ ci jublu mais jubluwuñ ci gumbag bët nii waaw dégg nga mag ñi dañoo amoon ay langage yoo xamante ni faaw nu firi ko kon buñ nee day waral gumba lool la waaye nag alquran dañ walladina hum li furujihim xaafizuna jigéen ak góor yëpp dénk nañ leen ñu wattu seeni awra muur ko illa ala azwajihim lu dul sa borom kër sa borom kër moom bu la neexee nga ne dungu ci kanamam mu di la gis doo ci am benn bàkkaar mais nag am na yoo xamante ni tamit dafa dafa sérieux wul maanaam nga di ko nëbbu parce que nit lu bëri ci kanamam bu yàggee mën na koo soof. Euh, ko kon wala ak waxande waxande yi ci waxande xaraamul sànni pàcc kersa parce que am na jigéen ñoo xam ne yàlla dañ la bindee kersa. na góor ñoo xam yàlla dañ la bindee kersa. comme koo xamante ne am na ñoo xam ne yàlla dañ la bindee kersa dañuy am kersa. te it kersa tamit lu baax ci nit la nag kersa lu am ci solo la ndax kersa bu diine doon fukki xaaj juróom ñeenti yi kersa la boo ko jëlee mu dañ waaye nag yonent bi ne laa xayaa fi diin dañ ñaan diine amul kersa déedéet bul am kersa ba doo laaj sa diine waaye bul am kersa ba doo ba doo waxtaane sa diine parce que li ñuy waxtaanee nii tamit xam nga thème bu xaw a sensible la waa nekkul ne ñëpp ko ñëpp a ko ñëpp a ñëpp ko mën a waxtaanee mais nag diine moo ñu sant ñu di ko waxtaanee yonent bi sa salam danaan toog di ko jàngal ay soxnaam ak ay doomam di leen ko xamal kon dañ ko war a kon kon dañ kon da nga fa nekk loo xam dañ ko wara waxtane kon amul dara lu aram ci soxna mu xol ko ci borom kërëm amul dara lu aram ci euh, ku gor len liñ ko téré dal moy buntu ginnaw bi ala kulli hal buntu ginnaw bi daal hmm. comme li yenen di wax sallallahu alayhi wa sallam ne sen soxna yi ay seeni tool lañ démé len fu len nexé bam ba mu sa tol sa tol kay sa tol kay bokay bay xam nga ab tol mom lañ ca xam moy day am dig dig moy fi tol bi yam yallahu bil mustafa sin waaw Boki, TDK Touba Darou électronique di jaay pour matériel électronique et informatique ay téléphone portable ak et accessoire Wow, Touba Darou Khoudoss électronique Nek fii ci au Ngelaw benn tali en face Jumaay Ibrahim Cheikh bi di Serigne Ibrahima Kane ak Touba électronique pour lu dim ci le matériel électronique et informatique dans nga téléphone portable yu yanjee casque Bluetooth ay ouvre MP3 dernière génération ay télévision écran plat ak ventilateur tout Touba Daaru Xuddus électronique jaxli day jeex ci lepp lu jëm ci informatique ak électronique wow bayiwul ben accessoire portable ay écouteur, ay casque bluetooth ay pochette à rafet lool ay téléphone portable original yu ñu ay ouvreur mp3 ay téléviseur LED ak ay commande télévision kër tout bas Daaru Xuddus électronique jaxli day jeex ci lepp lu jëm ci walu matériel électronique ak matériel téléphone portable ak seen accessoire dawal gaaw Dakar marché Tilène cantine Poisson,

disparité la. mais mm. jigéen ñi ñoo am na mm. am na maa ngi lay euh, sawar tontu ci sa question boobu li nga wax lu nekk lu am njëriñ am na ay lor euh, toujours damay wax ne keroog maa ngi ko wax sax ne même booy takk soxna. na nga takk soxna si diggu doomu maanaam koo xam ne rafetul lool bañ koy coow waaye ñaawul nga ba gaa yóbbu ma vaar sax dañ maa yóbbu vaar ndax nee nañ ma ki ma takk ma deuxième femme daa rafet ala kulli xaal waaye waxuma ne ñu takk ku ñaaw waaye dama bëgg a wax ne effectivement loolu ay borom xam-xam ñoo ko souligné ñoo ne soxna su rafet dana waral gàtt fan ba léegi génn gu mujj moom kon wax xaw nga nga léegi bu ko defee mbir mu ne diggu doomu daf caa baax fi ne booy togg booy togg añ booy togg ceeb kaani gi bu mu weex mu ëpp waaye nag bu mu bu mu lewet dégg nga baax booy naan ataaya bu mu tàng ba mu ëpp mais bu mu sedd maanaam toujours na nekk lu na diggu doomu mooy na équilibré loolu ci xaddis yonent bi laa ko teg mooy xayrul sa awsatuha même fi ne booy entraînement waxuñ la nga départ rek xelu daw dee mais da ngay def da ngay def ndànk-ndànk booy tàmbale entraînement tey nooy def boo demee salle lu ñu lay tàmbalee dañ lay def loolu par ngay def petit à petit tubaab sax nee nañ petit à petit l'oiseau fait son nid ndànk-ndànk mooy jàpp golo ci ñaay voilà kon nag léegi doo ñëw rek sànjaafu affaire bi ñi ko sànjaafu woon ñëpp nettali ko waaw ñi ko sànjaafu woon ñëpp nettali wuñ ko léegi bu ko defee dafa am loo gis loolu dafa am ay njariñ mais dafa am ay am ay lor loolu moom moom moom mooy moo di problème bi kon sëy da def par ndànk dama la doon dama ci doon nettali benn euh, benn benn xisa benn tubaab la ak nit ku ñuul ak benn chinois ñoom ñëpp dañoo takkandoo soxna ñu laaj nit ku ñuul ki yow ñaata yoon ngay jot ak sa soxna mune man 4 fois par jour 4 fois chaque jour di jay jambar ñu laaj tuba bi tuba bi ne mom 3 ñu laaj chinois bi chinois bi ne wan man mom ben yon lay def lim man ben kula am mom lay dur mu jeex pare naa léegi nag ñu dox touti ñu dox 1 an ñu laaj nit ku ñul ko mune ne ma ngi ci 3 ñu laaj tuba bi mune ma ngi ci 2 ñu laaj chinois mune man ma ngi wan rek finalement biñu démé ba mu yàgg demaat ay quelques années ñu laajaat leen kenn ku ci nek da nga mujj wacc ba mënatoo la nga mënoon ñu dem wan ñu toogaat tuuti lu yàgg ñu laaj chinois bi ñu ne maa ngi ci wan ñoom ñu laajeen ñoom ñaar ñu ne ñoom wan bi ñu doon def sax mënatuñ ko parce que dañoo dañoo doo seen bal yëpp benn yoon mu jeex xam nga booy guerre da ngay tiiree di observer fi ngay tiiree waaye doo yor sa pistolet rek picc mu la naaw nga nga tiire ko waaw fii ne àgg na ba ci àddina booy dox ci yoon bëgg àgg booy def ku la saaga nga fayu doo dem dégg nga kon am sëy ndànk ndànk comme ni ma joxoon sànq ci misaal mi ki laajoon sëñ Tuubaa ah, nda yëf yi ndànk ndànk ngay def loo gis ne da nga cay jël lu yam mais lu ëpp tuuru la olof wax kon loo gis ne dafa dafa am exactement te sama nijaay nee na sax koy xeexal mu jaaxaan la xaar ragalu la dégg nga baax léegi bu ko defee dafa am ay loraange maam Mor Galaay daf ci téere bi nee ne laa tuksiril jimaa yaa ixwaan yi bu ngeen bëggee wér bu leen bëri lu ngeen di sëy ndax kat nee jimaa fa lahu aafaatu mu ne am na ay lor yu bëri kasiratun yu bëree bëree bëri kama rawar ruwaat comme niñ ko nettalee ndax mu ne isil jimaa yuxaliku rijaala dafay lor góor wa yëkku sirul amrada wal ala dafa bëri ay tawat yu mën a recevoir ci yaramu yu mu ubbil pour mu ñëw ci yow parce que boo demee ba màggat tuuti da gis boo góor bu demee ba màggat yaram bi day bañ dégg nga baax moo tax mu ne wa yusmimul usna dana dem ba boo bëree looy say sa dégg day naqari day naqari dégg wa yud'iful basar comme li ma sank tay beud day day nakari naka noonu ñak ko def dana nakari ay beud parce que beurna xali xale yo xane fi ne euh, seen beud yi neexul te ñaka voilà amna ko ci doon jabar gi oustaz pan man damay febar rek ko demal nga wuti jeuker moy wa de nga wa yuksiru sulba moy day waral metitu sa yaxu ginaaw day voilà fi ne ko gis bim boy sey nit boy sey lu beuri te du lek lekk gu bax day dem ba boy juk sa yaxi day tok moy war ne liquide bi neewon ci yow dafa jiya parce que am seydou du asar dafa am luy genn ci yow asamaan nag buy tuuru te du arrêté bu yàggee dafay jóge de dafay jeex bu jeexee nag mooy indi feebar yi mu dem ba sa yax yi day bañ comme ni nga xam ne oto boo ko dee dawal te doo ko entretien doo ko vider doo doo doo ko noppal oto boo xam ne day xëy di daw kalandoo ba ngoon jot foo leen fekk fu ñu taxaw rek ñu aj maal bi dañuy ubbi capote bi pour wis ndox ndax lan day tàng kon doomu aadama tamit noonu la mel kon yooyu yëpp daf koy daf daf koy waral euh, mooy ay yoo xam ne sëñ tudd na ko ci téere bi ala kulli xaalim Daadu kon loolu moo waral kon euh, kër goo dem ci senegal ne ani paa ba ñu ne la mu nga armeer nga ne ana meer ba mu ne la ñu ngi ci biir. waaw bari na bari na waaw góor ñi defi na ne bari na ñoo xamante nii hmm. ah euh, boo leen li leen tawat loolu la de. léegi kon lu ba taxu ko bëri benn pàcc la ci am ci diis yi moom lan moo tax kon góor di faral di takk ay. waaye ba ñett ba ñeenti soxna. waaye nag mooy mooy gaaw mooy gën a gaaw a mooy gaaw a gën a gaawa a yëg boppam parce que fi ne góor euh, ji góor mën na dox léegi rek toog gis jigéen gu jigéen gu rafet mu sentir mu yëg mu yëg boppam maanaam li olof di wax mooy tubay ji xumb ci sa ca sens jigéen moom mënul loolu jigéen mënul loolu moo tax nag ki nga xamante ni nag moo njëkk a attaqué combat bi moo tax léegi ñu naan la xale yi léegi xale yi góor ñuy wax éjaculation précoce dañuy gaaw a daanu man leen ma ne gaaw moom ñoom teel koy waral dañoo teel a comme yow sa yéegoo di yéeg voilà xam nga xale buy jàng yéeg foog fekk day daanu fi ne foo fekk xale buy raam nii di yéeg ci lal ak bi kay day daanu rek fu ñu toor ñaa yaram waa ngi metti léegi nag xale bu góor nag noonu la mel boo teelee yëg dangay ngay teel a daanu waaye nag boo euh, téyee sa bopp tuuti xaw a am euh, muñ tuuti waaye léeg-léeg dañuy am ñoo xam ne su dañuy def lu ñuy tuddee ay masturbation yooyu yëpp dafay waral ay tawat tawat yooyu nag doo ko xam fii yaa ngi nekk ndaw mais boo demee ba ba am à 60 ans ci lay indi mooy indi feebar yu bëree bëree bari dana dem ba te fi ndal ni sëy mu bëri dana war a sax AVC dana war a léeg-léeg kii waaw boo boo sóoraloo attinut ah tubaarkaala de. waaw da ngay dem ba da ngay fatt. da ngay dem ba da ngay fatt da ngay da ngay daw li dañ ne boo joteeg jigéen benn yoon. góor bu daanoo benn yoon ci jigéen dañ mel ne ko daw 4 kilomètres. léegi yow 4 kilomètres xoolal ni mu bëree nga nga nga daw ko ëllëg nga a daw 8 kilomètres nga bëgg a daw 8 kilomètres ci semaine bi chaque jour rek nga nekk ci daw ak 8 kilomètres. bu yàggee dootoo daw da ngay toog bu baax doo def sport voilà yooyu aussi ay inconvénient la mën nañ ne bokk na ci inconvénient yi léegi dañu gis ne comme ñun suñu xale suñu genre gi xale jigéen ñi léegi suñu solin yi suñu comportement yi ñu am ak yooyu léegi daal awra jigéen du dara léegi fu la neex nga koy gis nu la neex nga koy gisee si mbedd mais xale góor yi du looloo léegi ñu ci bëri avant sax ñuy am trentaine wala dugg ci quarantaine rek ñu daal di yoom daal est-ce que du loolu moo ko indi waaw lu ñu ci bëri loolu da leen di dal xam nga mbir bu bëree bu bëree ci bët bu yàggee day soof xam nga baax wax fi na sénégal bu njëkk boo demoon ci village yi bu benn kër toggee ceeb boo añee ceeb doo raxas sa loxo ñun ba ñu nekk ca daara ja boo doon dem xew jóge rëcc ci daara ji dem ci benn ngénte ñu togg ceeb yàpp boo ko lekkee ba pare fi ne sa loxo bi doo ko nangoo raxas ak savon ndax lan xeetu ceeb bi da ngay bëgg foo toll mu di la xeeñ ndax lan booba ceeb daa ga waaye fi mu toll da ngay yàkkal ni ceeb yàpp sax mu naan la bëggatuma ko xale yu góor yi nag loolu bokk na ci li ko waral mooy mbir bu bari say bët bu yàggee day dem ba da nga gis fi ne xale bu jigi góor boo xamante day toll ci âge de 25 ans xale bu jigéen sol lu toll fii yaramam di génn ay weenam di génn mu wéeru ci kawam nga laaj mun mën la yëguma ci benn bànneex kooku fi ne loolu feebar la loolu feebar la fi ne góor dëgg-dëgg bu toogee bu ko jigéen riisoore war naa xam ne jigéen ko laal day mel ne maanaam fi ne nga sa loxo tooyoon nga laal courant dégg nga baax waaye fi ne ne xale góor yi fine yëgatuñ dara ñoo xarum tàpp daanaka ñu ci bëri ñoo yem. ala kulli xaal boobu aussi phénomène la boo xam ne léegi ci xale yi mun mënu ma ne sax si xale yu góor yi am trentaine ba jëm quarantaine bi mais léegi day am 15 ans adolescent lay doon commencé 15 ah, ans 20 ans commencé masturbé wu est li ñu naan dañuy dañuy relâché wu nga xamante ne mooy indi yoom boobu noonu nga xam ne sax ñu looloo leen teree takk soxna dem nañ ba am. mooy kumpa bi rek comme dégg nañ ñu ne tàngal daa sax suukar te ñoom amuñu njëgu tàngal te te jot na ci ñoom ñu lekk tàngal ñu dem ñu dem ñu dem dañu dem ñaani ko ci bitig ba rek loolu la pare léegi xale bi bu déggee ñu naan toujours comme li ma la waxoon sànq rek mu nekk tabu ci ñoom seen yaay wax ak ñoom boo doon toogoo sax bu njëkk bàjjen moo daan toog ak ay doomam di ay waxtaan ak ñoom jigéen fi ne xale bu jigéen léegi te premier jour bu gisee règle day yuuxu day tiit yaay sama kanam na fekk xamu ko dañ ko ko waxul rek mais boo demee ñi jaar ci yenn daara yi tey ñu teel leen koo wax ñoom du leen bett parce que danañ xam ne lii luy arrivé jigéen la te mën na ko bett di ñëw dégg nga baax sëyit noonu la mel fi ne xale yi dañu dégg ñu ne rek mbir mi daa neex comme ñu ne dafa neex nag te ñoom jot na te it bëggatuñoo dugg sëy ngir yàlla te bëgg nañoo dañ kumpa affaire bi daal xam ne mu ndax comme ñu naan neex na neex na ko mos léegi nag ñu daa dem rek gis ak benn célibataire bu mel ne sama <laughs> sama waa ji moom dama koy yeb lool dégg nga dem ne ko nag affaire bi lañ bëgg xam nu mel nag loolu nag mooy jur moo tax léeg-léeg vidéo yi nga gis ci internet bi ñu mel ne yenn si di kocca gaa yi di ko dugal yooyu la rek da nga gis xale bu ndaw boo xamante ni amagul sax BFM mais ma nga fatu ci ruqam toog toog di masturbé wu parce que dégg na ne affaire bi daa saf suukar te moom xamagul lu mu saf mu ne nag affaire bi daal faaw ma dañ kumpa ko parce que mag daraa nga fa kon naa dem xër naa xool xool affaire ba man tamit la loolu la koy waral euh, euh, impuissance sexuelle yi loolu moo ko indi daal. loolu kese léegi nag est-ce que ki nga xamante ni comme boo déggee ñu naan say jaamu yàlla la comme julli ni mu nekkee jaamu yàlla. ndax boo déggee ñu ne julli jullit bi parce que dañu dañ ne si julli ci julli lañ ko jëlee bu ne jullit rek parce que julli ga mën naa am suma juumu moo ci ëpp importance julli gi moom mooy premier pilier bi je crois léegi lu tax bu ñu nee nag léegi sëy jaamu yàlla la sëy bi lu tax ñu jël sëy ndax sëy bëri na ay facette bi moom lu tax ñu jël jote ba rek tuddee ko sëy muy jaamu yàlla ba kon sëy da am importance muy jote bi ci biir néeg bi da cee am importance. waa da caa am importance parce que ñaare mooy da nga yokk xeet bi ngay bokk. da nga ko yokk de un mooy di nga motti lente ba kenn ku ne la mu waroon a daw di ko wuti ca àll ba mu am ko ci kër gi mën a toog mooy ki ngay takk jigéen yonent bi dane dafa wax yonent bi dafa wax xadis bu am solo nit ñi ci bàyyi xel dane yonent bi dane boo demee bay takk soxna zawij bikaran tulaa'ibuka wa tulaa'ibuha booy takk na nga takk ku la mat saytaane mu lay fowe nga di ko nga di ko fowe fi ne foo gis benn benn mag bu am ay lu mat ay cinquante ans soixante ans bu takkee xale bu am ay vingt cinq ans dañuy dem ba dañ naan paa bi daa am faiblesse xale bi fekk jinne da ko jinne jaa ko jommal xam nga ko jommi boo génnee fii doo gis xale jigéen duñ la duutuñ la jaaxal moo tax benn waay bi mu benn do benn euh, koo xam ne xel mi dafa neexul maanaam ma jégalu ci kàddu gi mooy benn dof dafa toog jinne ji ñëw di ko di ko jommal jinne ji effort bu ne mu def ko nu mu def rek jinne ji di ko xool mu ne ko waaye yow xanaa doo jommi jinne ji ne ko damaa gis jinne ji la gën a garaaw waaw dof bi ne ko damaa jommi ba noppi ki ma jommal moom déedéet leneen mënatumaa jommal kon baax na ci góor booy takk nga dem takk koo xamante ne waa sëy nag waxuñ ne que ne kawlal ba rek mooy bànneex ba mais kaf ak ree boo kafeeg sa soxna ci kawlal ba mu kontaan xàqtaay ci guddi gi ree loolu tuyaaba ji ci nekk mën naa yóbbu nit àjjana fi ne te nit ñi xamuñ loolu tamit foofu c'est très nekk buñ nekkee ci kër gi liñ naan dañuy ay gaynde la ñuy doon nekk ay xar xale yi ndaw ñu leen di këll ñëwee ci kër gi di def le gendarme mu xam nga di fas seen kanam di ñàng di jaay na man maay kilifa kër gi léegi guddi jot nga bëgg yow séq ak sa soxna bëgg sa soxna def ko ak xol bu set euh, laaj nga laaj ba am solo ñu ngi ci euh, di ñaanalaat suñu sëriñ sëñ Pape Malick si maa ngi seetaan benn vidéo barki dem bu koy wax mu ne ku ñëw ci kër gi nanguwoo leen a nanguwoo leen a nanguwoo kaf ak ñoom nanguwoo ree ñoom nee na yow borom kër gi boo génnee ci mbedd mi da nga daje xale bu am 25 ans mu daw loola safa ak marwa fii ne da gis koo xam ne day taal otom bi dem ba dem ba marché aslem di wër benn tissu kese wala benn diwu yaram wala nangam di ko wër dañuy xam parce que dañ dañ lay wax dégg nga fekk la ko waral mooy benn xale bu jigéen moo koy dawloo te moom kat bàyyi na am saa bàjjen ci kër ga ku baax waaye fi ne ko waa waaye dana ko def dana ko defal ci mbedd mi moom moo tax sëñ Pape Malick ne boo ko defalul ñi ci kër gi boo génnee xale ba am 25 ans dana la dawal safa ak marwa te doo a bañ nag force force nga def ko waaw sañ sañ a bañ waaw solo léegi nag est-ce que soxna si moom loolu bu amee guddi gi borom këram bëgg nag sëy ak moom est-ce que tamit te soxna si xolam seddul loolu est-ce que jaadu na est-ce que yonente bi noonu la ko santaanee nga tàngal sa xolu jabar su journée bi yëpp guddi nga bëgg ñëw mu mu bëggal la ci kaw lal bi te soxna si moom xolam àndu ci est-ce que am na droit bañ wala danga ko war a mën a violer ndax bu dee ci suñu constitution bi loolu viol lay doon bu dee sa soxna danga ko bëgg a bëgg a bëgg a joteeg moom mu bañ soo ko forcer viol la est-ce que loolu si diine fi ne loolu dana waral avortement ñu bëri xamuñ loolu maanaam jigéen jigéen ak euh, euh, jigéen ak borom këram ñu meroo mer bu tàng ñu jotee ci doom dom joju noonu bu ci jigen gi jeli ëmb ñu bari limay wax ni fu leer la ko tek bu ci jigen gi jeli ëmb ëmb bi bala ma 3 mois pour mu def avortement day yomb parce que dom ci tension bi mu tangor bi mu judd ki la ci tàngoor bi mu soso la bok naka noonu bu magge bu judd mën naa doon doom yi dom yi fitna parce que dañu wax ni ñaar ñaar dañu wax ni ñetti dom euh, mo am dom ji nga jëlee ak ji nga jëlee ak ji ngeen dox tassé moy kawlal bi moy moy moy arène bi deng nga cameraman bi bu amé soxna ñu tëdd ci lal bi soxna si dem tëdd ci lal balee côté bale moom mu tëdd ci coté bii soxna si bu jëlee borom kër gi doom jooju màggee loolu da ciy feeñ dégg nga mais fi ne Balla Gaye buy bëree yow li tax combat euh, bu la daanee jëli bi da rafet mooy da jëli moom moom bu moom kay bu arbitre ne pire ñaar da naan la ñëwal mbaa ma ñëw moom da lay jëli bu la jëlee daan la moo tax ñu naan combat bi jëli bi rafet na waaye neex a faral moom ah, man moom tubaarkàlla xam naa daa mën a bëree <laughs> dégg nga ba léegi nag moom dafa lay jëli daan la ñu naan wuu du mën a ko daan na soxna nag noonu lay def borom këram soxna bu fekkee dafa teel la defaru boroom këram tëdd ci lal bi mu dem cokkaas ko jëli ko doom jooju bu juddoo rafet nañ ci njort ne man mën naa tekki mën naa moom day rafet tax xel mi day dal te day barkeel waaye bu fekkente ne yow dañ laa jëli ba noppi daan la te biñ lay jëli sax tombeeg bëggoo bëri nag fi ne am na mbër moo xam ne day rasu buñ ko bi ñu bëree moom day génn saa koy di rasu ñu jëli ko léegi mbër moom fi ne ñaare am bu daanee gars dañ koy xas buñ ko daanee ñu xas ko dégg nga ba moy da nga jeli génne la ci sa koy xëccar la ba ci biir door la daanel la dañ naan sa way dal da da da yàlla xanaa lu yalla dogal rek waye combat bi moom bëriwu ko deeng nga bu fekke wa bu fekke da ngeen tassé nak mom mom lool mom moy combat bu neex mom ñaari mbeuri ñay dox di dajé boko déggé moy kenn ku ne mëna door sa morom bu kaaw deeng nga ah, lool tamit lu ci am solo lay doon tabarkàlla ah, kon yoy yëpp ni ma bëgg wax moy da fay feeñ ci doom ji moy lool yëpp ci nangu ak ñaaka reey moy wayef moy wayef fi ne goor da wara wayal man na wayal soxnam mën na koo feccal mën na koo defal lépp loolu bu ngeen nekk seen biir kër loolu dara newu ci maanaam nga feccal sa soxna nga nga wayal ko euh, kaf ak moom tooñ ko defaral ko kër gi yooyu yëpp raxas duus dem ca boutique ba jënd yooyu yëpp dara newu ci dégg nga baax yooyu yëpp dara newu ci àlaakuli xaal loolu voilà du joteeg nag waala parce que fi ne nii bari na koo xam ne soxnaam dana soxnaam dana dana mer dana xulóog soxnaam mu saaga ko benn waaye dana ma sama soxna oustaz sama soxna daf maa saaga dama ko dama ko bëgg a fase ma ne ko dee saaga jërul fase na kat saaga nday du tàq du la xasaw ma ko ma ne ko am na barab boobu la saagaate fase ko kat da ngeen jotee ci digg lal bi mu saaga la wala sax mu ne la nga ne ko may naa la sama yaay yow ma ne ko yow maye nga fi sa yaay maye nga fi sa papa rek mu xàqataay reetaan ni ma wax nga dëgg de ma ne ko kon kay fi nga mayee sa yaay mayee fa sa papa te bànneex a waral ko ñu saaga la fa te waxoo dara kon bu mere saaga la da xam ne jigéen moom bu meree moom benn arme la am rek mooy la violence dee l'arme des faibles al xusumatu silaahu duafa mooy waaw waaye yéen da ngeen a mën a tooñ nag waaw tas du ñëpp bokkuñu ak sama classe gi man bu dee sama genre yi nga xam ne ca daara ja lañ man boo defee dara pour merloo ma sax loolu dama maanaam damay reetaan di xaqataay voilà loolu du du mais am na ñoo xam ne dañuy yàlla moo bindi jaam yi wutal leen dafa am ñoo xam ne dañuy gaaw a seen bopp dañuy gaaw a gis bopp jigéen ñi nag léeg-léeg nga freiné ko da ciy baax nag léeg-léeg nga teg sa tànk nag wan ko ne ko nag fii du fa koy jàll parce que jigéen daa nekk ko xam ne bu tegee tànkam ci escalier bi nga may ko ci sa tamit <laughs> am na solo am na solo bu baax a baax non vraiment kontaan nañ trop trop si émission bi Sénégal ñu jéem a xoolaat ne suñu culture suñuy us et yi nga coutume yi nga xamante ne moom lañ fi maam yi bàyyi woon bu yàgg ba relation sexuelle bi amoon na mais c'était euh, c'était pas devant la scène lañ ko doon defee mais ci biir néegi ci biir concession yi bàjjan yi daan jël ay doomu càmmiñam tëj leen ci biir néeg comme ni nga ko waxee léegi wax leen lan mooy lan mooy sexe nan la ñuy sëyee lan mooy néegu sëy ak boo demee ba gis mbaax bu la góor jegee nii ak nii moo lay dal pour ku jigéen gi mën a xam fan lay teg tànkam góor pare bu duggee néegu góor nijaayam nekk fa di ko di ko jaarloo ci yoon ba nga tey jii c'est très rare nga gis jamono yooyu góor dem ba yenn âge yi di am ay problème mu impuissance truc affaire yooyu noonu loolu nag moo fi manqué léegi comme moo fi manqué te yow yaa ngi ci ñëw di ci def ay jéego yi am solo macha allah pour jeunes yi gën a mën a xamaat seen bopp loolu am importance la nekkul ne dañàkk déggin moo tax ñu koy waxtaane nekkul ne dañoo yàqu ndax Sénégal moom yaa ma gën a xam waxtaanee fi sexe dafa xaw a sensible mm-hmm. mais nag pour jàngale la rek ndax l'islam lépp mu ci biir téere bi mm-hmm. waaw lépp a ci biir téere lépp a ci biir téere bi macha allah mm-hmm. waaw léegi dañ lay bàyyi rek nga fekkee ne am na question boo xamante ni posé wu ko loo ci bëgg a yokk wala dara rek. waaw loolu mu daanaka li ñu ci waroon waxtaanee lii du jeex parce que boo xoolee dañ doon résumé parce que lii lépp ay page la ñuy jël ci téere bi doon ko waxtaanee jeexul li nga wax sànq rek foofu laay foofu laay tëjee mooy wax dafa metti parce que sénégalais dana dana ñëw sax dañ kumpa nga danga ko dana dana gis sa wax mu dem di ko déglu ji mais déglu ko pour jariñu ko jariñoo ko da koy déglu pour dégg sa njuumte. waaye nag ñu bàyyi xel ne lu lépp lu ci xam lu jub la ci yàlla la lu ci dëng ci ñun suñ jëmm ju xeebu ji la dégg baax li ñuy jàngale tamit teguñ ko suñ bànneexu bakkan kilifaa ko bind ki ko bind nit yàlla bu mag la bu dee ragal yàlla moo ko gën a def bu dee sàmm moo ko gën a def bu dee am xam-xam moo ko gën a def dégg nga baax kon li ñuy waxtaane yonent bi da ko doon jàngale mag ñi téere bi mag ñi dañ ko doon jàngale seen biir kër foo dem sëñ Cheikh boo demee waxtaanam yu bëri mi ngi ko ci tudd ba ah, ba laa jaw salaaw góor googu kenn melul ne moom sëñ Cheikh Almaktoum da koy tudd lu bëree bëri kon téere bi dafa jot ñu traduire ko ci tubaab toj ko nit ñi jàng ko ñu xam ko parce que fii ak sexe ngi nekk kumpa du dañ di yee fitna ci suñu réew mi ala kulli xaal parce que scandale yi bëri na lool te yëpp réere ko rek moom moo koy waral ndax al ins dañuy wax ne ar dañuy wax maanaam arab yi dañuy ne al insaanu aduwun li ma jahil nit ki lu mu xamul rek noon noonam la nit nak nonam day jema dem pour attaquer ko bo attaquer sa non noo xamewul nak man na la indil ay gañ ngaañ ala kulli xaalin li nga wax ni eh, lu kenn mënul di di la ndax téré la mu ngi ni ci sa tanam ben benn lu yalla bindu ko mu nekk li nga xamanteni ni lu am solo la mm-hmm. mais amna sax yeneen yi nga xamanteni ay mag bind nañ ko ci yo xamanteni sax yoy mom mo gëna gën a. am na yoo xam ne jigéen ci boppam na mu composé na mu mel jigéen ju nekk fan lay yëgee plaisir am. lii première partie la rek man yor naa ci livre boo xam ne boobu moom ñëwuma koo jàngale. ñëwuma koo sax wax. voilà waaw waaye nag ñun moom danañ ko jàngale. parce que li tax ñu koy jàngale mooy. am na ñu ciy jariñu. donte kenn nit la na ci jariñoo mu xamee loolu ma ñu am sax amaa la la ci nit di wax ak la ci nit ñi dégg comme ni ko say oustaz Yara waxee rek moom macha allah ku ku jàmbaar la euh, nit ñi moom danga leen di sarax rek nga bàyyi leen lu leen neex ñu wax parce que nit moom ku xamul xamul yonent bi bi muy jàngale lu ne dégg na ko te ñun comme ñun dañ ko bëgg a jàllaleel dara lu ne dañoo fas yéene encaissé kooku xam nañ ne danañ encaissé kon nag dañ koy encaissé ku bu ñëw rek baax na ala kulli haal. ko waaw kon doomu aadama ko bëggee am day sonn. nee na déedéet déedéet nii nii nii la prophète ce soir la toi voilà. jërëjëf kon ñu ngi gërëm bu baax di sant di di la jaajëfal xam-xam bi leer na am na solo te rafet na macha allah yàlla yàlla yóbbu xam-xam bi.